coalition bu mag a mag bi nga xam ne mooy double XL la Assane mooy xeeñ xunn xunn xunn xunn moo dina la ko wan léegi ñii la moo dee bëgg a wan ay ponkal lañ yoo xam ni li ñu bëgg mooy gàddu assemblée nationale bi téye assemblée nationale bi nga xam ne bu moo dindee léegi kii bi numéro yooyu di nga gis nga xam ne mooy ponkal yooyu moo du wanaat ma ko ñii ñoo bëgg a dem gàddu assemblée bi Macky Sall Omar Sarr Macky Sall ñaari Omar Sarr waa ñoo dend ci kaw ab Ablaye Balde Pape Diop euh, Moussa Sy Diagne Fada ak Macky Sall Assane ñii. ponkal yi Idrissa Seck ñu ngi ko ciy wax waaye ñëw ci photo bi. voilà bi moo kii. ñii moom wax dëgg yàlla damaa yaakaar surna bi leen tuumaal rek waaye ñoom. defuñu ko damaa yaakaar surna bi leen di tuumaal rek. tuumaal waaw. ak ñi bu ñu doon tase dinañ tase nii xool màgg di jeexal tàkk ñoom ñëpp jeex tàkk ànd àndandoo nii. màgg teewut am mbooloo de. xam nga yow double XL nga nga wax. ñun hmm. ñi M lañ waroon a préparer réew mi M moo mën a jëngal ñii fi ne. M mooy lan mooy bu ndaw bi ndaw. mais double XL maam ma ah ñun weesu maam. kii la ah, kon M lañ war a jël primé nag double XL dafa primé. ah M ngay wut waaw. ah M mën a jàkkaarloo ñii mën a jàkkaarloo ñii fi nekk. ñoo xam ne ñoo leen di gën a féete ndaw wala ñu maasee ak ñoom. mais ñi wax dëgg yàlla bu ñu defee nii. seen wàll est-ce taawee ko. em ko bu ñu fóot ba mu taawee ko. mën naa lekk de mën naa lekk de ñu fóot ko ba taawee ko yëmbax. Ah. waaw dëgg day am de. te sol ko naan sama yére bii da koo jaawale. fekk dañ koo kay fóot ko taawee. ah damaa xam mais ñii. ñii ñii waruñu woon xam nga ni Diagne Fada boo ko fekkee fële. Euh, daarul moxoti mu yëkkati la ba ca kaw dóor ci suuf saar mii boo ko fekkee dagana mu hmm. yëkkati ba ca kaw dóor ci suuf nañ ko defaraat il faut ñu tas ko defaraat ko dugal si ay ndaw te ñii ñii maam ñi ñoo bokkoon benn jëm-jëm loolu doxut ñii maam ñii waa la lii mooy waa APR ak Ablaye Wade ak njaboot Ablaye Wade anañu ñi waa APR nag ñoo guñ mais ñi waa APR nag dañoo war a wax ne waa APR kat nee ñi ngi defaruwaat mais ñii waa APR la ñëpp ñu ngi man photo bi ci suuf sax mu baal ma Déthié Fall laa ko tegoon nañ nañ ko xoolaat. non du Déthié Fall de. kii wet ci wet Pape Diop dugg booy la. moom moom mu ngi si emu bi du dugg si. en tout cas daal jàngatal. waaw naa ba noppi. loo damaa yaakaar ay tuuma la mu amuñu xel mi xanaa seen xel war naa weesu lii <laughs> xel mi xel yi moom. non Assane Assane sérieux quoi. <laughs> yow même bu dee ay tuuma amoo ay sources yu leer ne lii du ay tuuma. de même dama ne seen xel dafa war a weesu lii ñu def nii. jëm ci ñii day politiciens ñu jëm ci élection waaw yow lii xam nga ne lii saa ji jeex na lii ay conseil rek lañ leen soxla fi tool toll nii. toog di wax seen xalaat ci réew mi. te ñu fas yéene nangu assemblée bi. assemblée moom ñii moom wax dëgg yàlla bu ñu naree dem yow ma dem. Hmm. te maa leen fay tànn si carte na yàlla joxe hélas. Ndiogou. Mhm. coalition bi de euh, ñoo fa fas yéene jëmmërloo ak ñi fi nekk. ñii rek nga gis nag waaye bari nañu. Mhm. ñoo xam daal dañoo bëgg a nangu assemblée bi ndax ci élection yi ñu jëm ñu bari ñu ngi naan li tax gars yi mën a guñoo liggéey dëgg dëgg dëgg. Mhm. mooy teewaguñu assemblée bi parce que ay sabotage mu ngi fay am ba tax na ñii ñoo bëgg a jàkkaarloo waa xam nga euh, ñii bu fekkee ne ñoom ñoo jógaat. Euh, dama ñoom. dañoo iñaane sax mm-hmm. ndaw ñi ak ñoom mm-hmm. ah parce que ñii xam nga lu ñu war a def mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ne ci ginnaaw jiital seeni gone ñoom ñu daal di tekk seen tomb ci tànk ci wàllu jëm ci wàllu politique parce que ñii euh, jariñoo nañu réew mi ci wàllu politique euh, pendant des années am ay nit ñoo xam ni toppoon nañ ci seen ginnaaw euh, yaakaaroon ni kat wax dëgg fa yàlla bés dana jot ñoom ñu jiital leen hmm. ñii tey Ousmane Sonko daf leen a wan leneen loo xam ne ñoom dañ cee waroon a jàng ñoom waaw comme lan mais gis nga li leen di wan ne leen ñoom seen jëmmi bopp képp leen ñor mooy bi mu demee ba yëf yi doy waar hmm. mu jiital koo xam ni kenn la ci ñoom hmm. loolu mooy àndub nawle nga jàpp ni kat bu doonut yow doon keneen c'est que parti politique Sénégal yi dañu waroon a jàng ci doxalin bi nga xam ne moom la Pastef doxal ba yegg ci nguur gi ñu xool nu ñuy doxalee mhm. parce que mënoo ne da ngay ànd ak ay borom xam-xam te bu dut yow du doon keneen kon donc nawloo woo ña nga àndal mhm. seen xam-xam bu fekkee ne da nga gëm rek na yow da ngay defar réew mi da nga gëm rek na yow réew mi moom nga bëgg a puus te war na demee nii mhm. donc man jàpp naa ni ñoom doxatuñ parce que nekkatuñu xar kanam yu dox. parce que élection yi ñu génn daf koo wane. mais laaj nga baal ma foofu day fekk nga préparé koo mën a jiital. waaw ah, moom laa la moo tax ma ne la. waaw est-ce que préparé nañ ah. maanaam iñaane gi ngay wax mën naa am dañoo gisul ku ñu iñaane parce que formé wuñ kenn non non ñoom ñi amuñu xam-xam bay moom laa lay wax nag léegi xaalis lañ yor ñoom ñi amuñu amuñu xam-xam kenn amu ci xam-xam ñii nga xam nga tey Pastef boo ni woon tey xam-xam boo ni woon Basiru mën nga wax ni Souley Biram Souley waaw mën nga ni euh, El Malick mën nga ni mën nga ni waaw mais ñii tey kan nga mën a wax ni bu dul kii kii ñii amuñu xam-xam moo tax dañoo dajale ñoo xam ne ñoo leen ëpp <laughs> lañ leen jaay du xam-xam yaa ngi dégg ñoom xooluñu xam-xam quoi maanaam seen logique bu parti xaalis mooy dox maanaam maa ëpp xaalis maa samp parti yéen ñi fi ñëw yëpp ñu ci bari sama xaalis ngeen soxla. Mhm. ma leen di jàppale ngeen may jàppale. loolu mooy li nga xamante ni mooy seen parti politique yi parti yi teguwut ci ay euh, boromi xam-xam. Mhm. moo tax koo ci gisaan mu créer parti mooy financer parti ba waaw. dañuy ñëw président lii manqué na de ay seize président sonorisation président il faut que ñu dem jox ndaw ñi ñii président il faut que ñu dem jox jigéen ñi lii président président day débloqué rek day jox xaalis rek du xam-xam du dara amut ab discours amut lenn mais dañu war a xam ni façon politique boobu jeex na fi son yi si bu ñu deltuwut ginnaaw jéem a xool parce que ñoom ñëpp dañu waroon a arriéraat daal ne ñii xam nga opposition bi fi mu toll nii tey waroon nañu toog at moo xam ni war nañu xalaat ci li xew. Mm-hmm. bu dee ku sérieux la yaa ngi dégg. Mm-hmm. daal ne am na lu xew lii xew am na message fort boo xam ni sénégalais yi wane nañ ko. Mm-hmm. am na lu ñu gëmutoon ni war na mën a am ci politique léegi am na luy ndey ñun ñu sampoon ay parti politique daan ñëw di jox nit ñi alal. ñu toog ba ñiñ doon jox alal di dajale alal di ko joxu politicien lii dafa mérité ñu def ci ab taxaw seetlu jéem a xool lan moo indi lii ak état d'esprit askan fu ñu ne mm-hmm. loolu nag boo jàppee ni ay tandu la mm-hmm. respecté woo loolu mënoo ñëwaat yaa la ki mën a ñëwaat il faut mooy ki respecté li romb nangu liy xew nangu ko ba noppi nag daal di xam ni kii kat nga dem suivraat parce que fi ñu doon xam ne ñoom lan moo leen waral suivraat fan la Ousmane sonkoo jaar ak hmm. ndaw ñi. ndax discours la ndax ndax. ñu xoolaat. ah mais am na ku ko fi xool ba pare di jéem loolu ngeen naan ko màjji màjji dëkk day Sonko Sonko. koogal ki jéem loolu di def ay discours yu dëgër. màjj mbir mi kon mooy que. màjj màjj man màjj yi kat dañoo bëgg a bari màjj bu xees wala bu ñuul. màjj bu sikkim maaji bi am kii. ah maaji maaji maaji maaji moom moom kooku du amul xam-xam. beneen bi nag xees mu xees mi ngi noonu ci calcul yi mi ngi ci mbalit mi. ngay xool xaw na ko rek ci màggal gi. saa waay kay bàyyi la ko. maaji dootu loo tudd que bii yoon moom li ko def moom dafa garaaw. war nañoo xam ñaata banaana lañ xool ñaata xool tu nen. mais Assane da ngaa saboté maaji. ñaata fruit fa dugg. ñaata fruit fa dugg. Assane yàq nga màggal. ah non non non mais sa tamit nag ci atum ca gannaaw. <laughs> mille neuf cent ci atum ca gannaaw. barke Rasulullaay doo léegi. Hmm? bu noppee ñun ñëpp dañoo war a wax muy wax. parce que bugaan amul cohérence. <laughs> mille neuf cent ci atum ca gannaaw. Hmm? mi oto ñooy dugg nangami scooter Jakarta. waaw ah, bunti yi Touba yi ñeenti buntu la Touba yi dem na ba ba compter bunti yi. day wër rek maanaam moom daa wër rek. Ah, bindal bind benn bunt ñaari bunt leedu bunt ah ñoo waaw leedu ah, bunt ñetti bunt ñeenti bunt ah kon Touba ñeenti bunt la noté leen ko. Hmm? jërëjëf état lii lii état wax dëgg fa ah moom jàmbaar la de. waaw mbalit mi yëpp xam na moom ñaata ton kii mbalit. <laughs> pourtant man sama mbalit kër wax naa leen bala bala kii ñu xam. ñaata waaw non nañ ko xam de parce que sa waay da koy laaj da koo soxla. <laughs> ba noppi nag ànd ak koo xam ni ca délégation ba ngay wax guy ga muy wax Dakar ga <laughs> moom délégation bi barke. est-ce que wàcce wuñ ko waaye ngaabu ko waroon wàcce bu dox. kenn gis lii. macha allah.